Nikita kan Mia Oh Corazon Nikita Nikita Mia Orekero Corazon Hala mu ñu la defé xaliss bi dam koy calculer xol ndax man wala matul xaliss ngay xol ndax man na wala mana? xaliss la xol na mana? na wala matul légui man na man na kay anima delat ko anima del nako yow do yow naa jox xaalis bi pour la ma la jox xaalis bi yow réunion wu ñu taxaw teg suñu sart ñu ne xaalis bu ñu liggéey man maa koy denc ndax maa la gën a neex xel daw yaa tax ba koritew ma bu doo woon lay sar ci Hollande ak Racine du ma korite fii fii nii de lay sar nii de Racine ñooñu defaluñu ma dara dara doo ko denc yow dinaa la ko jox nga jël booy ba xaalis yi nga xamante ne booy ba nga xam daa bëgg baa nga xamante ne jël di ko jëndee baal hmm? ah benn affaire boobu nga xamante ne baal rek la bëgg xoolal sama gel laa génne sa lamiñ du la ko jox génne sa lamiñ laa sama gel du ma la ko jox tey du ma ko jox ëllëg c'est moi qui gère l'argent envoyé tiré doo ko denc ah, lii doo ko denc da ngay xoolaat neneen noo ci def waaye lii yow yaa koy denc lii doo ko denc sama bakkan laa ci teg léegi laaj soo nañu ko jox léegi laaj man laaj soo mu si kër gi léegi kañ dem ñu jox ko Jitu topp sa gannaaw déet yow yaa yow yaa yor xaalis kay jiituma sa gannaaw xam la attan nga maa nax sa ginnaaw nga jiituma topp sa ginnaaw dina surveille ba baa ngay am xam la bu baax international nga da nga jël xaalis tey la tubay bu toj bi ni tubay allah ji abibatu dama ni ko journée bi la ci surprise bu la yéem allah ji abibato ngi waaye o fii nga ma doon indi kii mooy abibato dogo faaling maa wa kumba samba yaay joloor dogo mi ci mbeer far lamb deux fois ma teena kaatime ma ca jolaay lambaay ma jigéen ceer ca gaaw ga ñaaw ga dameel sa maam bi xar bi si gaaw la woon ngir ma xoy di tàkkay te ngir ñam ñu fitu fay ko yow macha allah ku la gis xam ne mat nga gaaw faal ñëwal yow itam <coughs> non na ñëwal ku la gis xam ne mat nga giir macha allah faal mi yóbbu na ma fu ne nuy wayaan ma ak moom. yaay Madou kii damaa jaawaleeg seen seen seen géer yi. ah du ma seen géer di. non non mais ko non. yaa ngi waaye tamit ni yaay doo wax nag. le plan yi du noonu. ah non non non faal nag xam nga nag xam nga nag yow tu n'es pas sérieux quoi man dag may expliquer mu leer ti kii kii lan. jërëjëf Moussa moom moom. waaw non mais je te rappelle je te rappelle je te rappelle. jërëjëf jërëjëf. yaay jiitu maa toog sa ginnaaw. ah baax na da nga. yaay jiitu maa toog sa ginnaaw jox ko sunu xaalis jox ko sunu xaalis. joxe ko na loolu bay bëgg a dee. waaye combe yi mën naa xam la kañ ngay noppi. suba suba laay noppi suba suba suba. ma gën a dof te combe mën naa yow noppi suba suba doo noppi. noppi moom suba laay noppi suba. ci heure bi baax na baax na laay soog kii dafa dof yaa ngi def kii lu tax mënul tey mel ni yow. kii sama demi ñees la moo tax du ma sa dara doo sama dara. sama demi ñees nga. ma sa dara. yow xaw ma yaa may noppi la xaw ma leen xaw ma leen mel ne doomu Esteban Sigal nii noppi wu ma. waaw Esteban Sigal kii gën laa suqee. Esteban Sigal. xam nga la baal ko dégg nga. Ah, mi sama digganteeg moom mais du ay géwél ak géer. waaw lan la. quand même sama kii la. ah dang koy doxam non mais bàyyi yoy ngay wax aussi tam yow nag nijaay loy bañ ci lolu leg man doxam ma ñu genn wax ji jeex non non non ah waaw waaw ah da nga bañ kay non non non non non ah nijaay kan bo bañee rek nak ma dem ci nijaay deureum mi non ma ngi lay doxam ah waaw waaw neel damay doxaan kon d'accord ma ngi koy doxaan ah ma demeroon na ma non non euh, euh benen bi moy euh donc Abibatu euh tu sais que ni man euh, dama la bëgg loolu àdduna yëpp xam na ko waxtaan naa ci aussi ak Adama Fall wax naa ci ak Kàjji Kànji Soose ndeysaan donc li may def mooy premier chose bi nga xam ni moom moom laa lay wax maanaam dinaa yëkkati cent cinquante mille fanweeri junni teg ko ci loxol dërëm gaajo mi ma teg ci loxo waaw loolu nag ay petit achat yoo xam ni pour yow la yeneen détails ci des yaa koy wax ma dégg ko je vous écoute. vous dama laa bëgg nag moo tax tabaski bi moom dama la koy yombalal rek nga ma cheveux naturel ak quelques getzner wutal ma xar loolu rek xam naa moom baax na moom. Hein? non yow yow sa dara du poids. baax na de. ànd yaay dara. ah ah. yow kañ ngeen noppi. suba noppi ma doo noppi noppi ma ngay mel ne reenu mango noppi ma. wala kii dara. ah la la ma tabaski baa ngi waaj jub ci dañoo dajale suñu xaalis bu mu bëri yaa ngi dégg ay 2000 ay 1000 francs ay téeméer yaa ngi dégg dajale ko ba mu bëri te xam nga tabaski baa ngi jub ci ala jigéen dañuy soxla naxa nax yu mel ni maa ngi moom. mel ne yow yu mel ne maa yow. mel ne yow. yoo xam ne dañuy leen leen bëgg a nax jëndee ko ay suuf naturel ak ay rose à loolu motax may nañ dajal fi xaalis la koy jox mu brique mu deng la ko li ñaata la li brique la brique brique moy ñaata brique bi fukki jooni la eh brique moy 1 million oh, fukki jooni moy 50000 dama bëgg mu leer li 1 million la ci man dafa ci dama ko liggéey la li fukki jooni la fukki jooni waaw 50000 waaw moy tel ni dem tel ni nak bis bu réeré yow dañ lay tëj lu eh, am ana ana ana ana ana ana ana teel ma ko dégg nga maa la ko jox dégg nga. tey sunu àll boo ko mënee nga téye boo ko mënul nga bàyyi. bëri laa la jox dégg nga bëri dégg nga doomu Stéphane Sigal nii. beneen chose yi mooy euh, je viens de divorce ak Soda Diagne. kañ ah waaw waaw waaw <laughs> divorce na divorce na dégg nga divorce na divorce na dëgg la ndeysaan. kon baax na man de lu leen neex rek laay wër. waa Abibatu ah <laughs> yow doom may sa seex yow ah. <laughs> man damaa bëgg kay nga may ma ku may ratt comme ni ngay rattee Jóob rek. Ah? ñaar ñu bëggante kay faaw kenn ki di def dara nag. <laughs> ah man eh, yow ratt gi nga ko ratt nii du dara di. waa daf maa bëgg te man tamit xam nga nag dama koo bëgg nag. man mi la ne may ma ku ratt nag. waaw xam nga ñoom seen dëkk noonu laay baadoo la la ñoom noonu la ñuy waxee quoi ñoom lu leen neex wax. Euh, beneen bi mooy euh, j'aime bien que nga wax euh, sa xarit yi le jour du tabaski je serai là. mana ak yow ak bisu jagana ah abi batu wa bisu jagana mom do ma may ma ma fi sabilillah ngir yalla ak yonent bi na marat way ma atan nga ko nako def fi sabilillah rek ngir yalla ak yonent bi wa wa wa na na biisu ñëw ba way <laughs> inshallah allah dafa xew nak ok ñun ah waaw da ci bax man kuma rat ci tabas gi ma jël di yow mën na xam la suba suba teel a mbir dem teel a mbir dem wa ko ci dem ah ba al musu bi nangu naa ci nag ah yaa muus yow sa café kii moo am ci yow confiance di la ay xaalisam man ak yow zéro confiance aw ma ci yow dara ci yow eh. confiance bis bu réer suñu xaalis lam bi la takkal eh, dégage nga naan eh dégage dégage tekkaaral bi tekkaaralu caga rek la ma jox caga day